jërë ngeen jëf gandu neex bëgg na neex ganu Macky Sall ba mu doon gana ji askan ba nekk ca diwaanu Saloum ndiki démb ci campagne d'investissement ba mu fa amal bés bi di la jour daal di koy dëggal nañu Macky Sall fait battre le cœur de Kaolack maanaam ganale bu kenn mësta gis laskan ba nekk ci diwaanu Kaolack dal di ganale président de la république sa dëkk boobee góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp génn ngir teertu Sall ngaar yi moom Sall ngaar yi daal di kontaan résultat du leer fas yëkkati ay milliards ci suñu koppar dugal ko ca Kaolack las le soleil Sud Quotidien Le Quotidien ñoom ñëpp xëy bind ko ba noppi fësal ko seen xët bu njëkk yéeral xët bu njëkk ba di yéenekaay moom mi ñuy xamal ni lu tollook cent milliards le président de la république fas yéene jël dugal ko ca biir saalum ci liggéey yi nga xam ni fas yéene na ko amal ñu wax ci yeneen milliards yi nga xam ni jël nañu ko dugal ko ci wàllu wérgu yaram yéenekaay bii des milliards yi ñuy wax dugal nañ ko ci wàllum santé askanu Sénégal gisuñu si seen bopp feebar faju ci anam bi nga ko bëggee fii ci réewum Sénégal doon na fi lu fi jafe lool manque d'équipement ak personnel yu doy hôpitaux yi moom la ñuy jooy tonoppeeguñ ñu génn ci coowal santé te dugg ci coowal politique Walf Quotidien nañu tey la tey waaye suba la suba niki suba ci àjjuma jile yemoog le 17 novembre la ñuy xam ndax Ousmane Sonko dina bokk ci liste électorale yu 2024 la tribune xëy bind ci xëtam bu njëkk 1 17 novembre décisif ban décision la cour suprême nar a jël ci Ousmane Sonko ni ki suba ci ajuma jile la daloon Karim Wade ak Khalifa Sall moo nar a dal Ousmane Sonko am ñu génn taxaw tem ne ñooñu duñu Ousmane Sonko te Ousmane Sonko duñu ñoom te ni suba ci 17 novembre bi la ñu koy xam ndaw yi takku ba dëgër lañu def ngir jëlee Ousmane Sonko ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekkee jamono bile keneen ki nekk ci ay jafe-jafe Oustaz Omar Sall lay wuyoo ni démb lañu fas ko koo defeere tey ci alxames jilee ki ñu ko xamal di libération ginnaaw bi mu yëkkatee ay kàddu yu tegginewul jagleel ko benn tarixa bu nekk ci miim réew ñu jeexalee suñu xibaar ak wàllum tàggat yaram di wax ci centième sélection bi nga xam ni Sadio Mané ndar na ko amal ci samedi bi ñu jëm suñu làmb xëy di wax ci làmb bi nar dox ci digganteeg Lac de ak kii di Siteu làmb ju nar a neex làmb ju nar a tàng làmb ju nar a am bëri Lac de Guiers taxaw ci xët bu njëkk ne dina duma Siteu ba noppi daan ko <laughs> lépp dimanche lay leer kon ba dimanche